dañ ne kii yar dafa war a dégg ñi muy yar. dafa war a xam bii abi temps bi muy yaree. man temps la. lan moo xew ci jamono ci ay yàqu-yàqu. nit ki boo ko bëggee yar ban environnement nga koy intégré est-ce que da nga koy bàyyi ca taaxee wala da nga koy yóbbu ci àll ba. ay détails yu yaatoo nga mbokk yi. genn këruk sëñ Saliou Mbacke gu muy yaru gu muy yaree gu jàkkaarloo geneen kër te tudd daara. ku ca xam na ma ko wax. su dee gota léegi la dëkk ba màgg sañ sañ abi bi moo fa nekkoon waaye jubluwul woon a taqoog waa dëkk baa jàkkaarloog ñoom ay néeg léedeet boobu ba léegi nag geneen kër gu muy am gu ñu yare gu nekk ak ndànd foy foy la mooy kër goo xam ne saa yoo génnee daj ci àll bi loolu lu ama am solo ci yar la ndax nit ki mënoo ko takk takwin mënoo ko former fekk yaa ngi dugal keneen di génnee munta tane mais su fekkee daa nekk fen di tànq di gis lenn di gis ñenn di dégg lenn bu yàggee day lagg ci loola bu fa duggaatoon bu fa jógoon dem pari dootu am jeexit ci keneen surtout gone gu ndaw loolu tax sëñ Saliou technique bi mu njëkk a def ci yar jaaxal ñi képp ku yare mooy ñeme gim ñeme àll ak ñeme gim ñeme wéetaay ak ragal gim ragal jonjoo ci ku muy yar loolu lu yéeme yéeme la ba tey awalan thaniyan jumtuwaay yim def muy ab yarukaayam ginnaaw waxaguñ nag ci sifaat yi nga xam ne mooy nit yi mag ni muy composé mais dafa am ay alaat jumtuwaay yu muy yare mm-hmm. gone gi ne cëpp ci moom ginnaaw ba ko miinalee boppam ba noppi alquran la cay jiital mm-hmm. xanaa loolu kenn du ko critiqué mm-hmm. bu fekkee ay julit la buñ dul ay julit nañ tontu kon la borom xam-xam ba tontu woon keneen ka dañoo ne ko yéen waa l'islam da ngeen a sonal sonal seen doom yi mu ne ko effectivement mu ne ko ndax lan mu ne ko sunuy doom juróom fukki isib da leen di xaar ñu war koo mokkal bi ci desit ahadis nabawiya yi nga xam ne yonent bi daf koo solo dañ koo war a xam te buñ noppee dañoo war a pëccëxoo ak yéen ci àdduna ngeen bañ ñu ko ëppalee nee na goog gone du am jot lu am solo la wax mm-hmm. moo tax nag mën na ko nag yéen nag ci ci testament ngeen di wax mm-hmm. testament mooy loo xam ne nga ko tekki pël mën nga ko tekki ci xalpulaar mën nga ko tekki wolof mën nga ko tekki ci loolu la neex mm-hmm. bi daal li mooy moom mën nga ko traduire ñu ne boo ne woon mm-hmm. xulaas bi rabil falaq ñu ngi lay wax waa xaar ba xam min sharri maa xalaq nga ciy tegam déet boo ko ci tegul ñu la juum nga mm-hmm. kon islam li koy xaar rëy te bari waa ji ne ko nag ñun sunu doom yi juróom benn fukki isib da leen di xaar te dañ ko war a mokkal dañoo war a xam ahadis nabawiya liñ solo ci seen yénent te dañoo war a xam it ñi ko sos ñi ko solo yéen nag yeson bu ngeen ko waxee bu leen neexee lu leen ngeen teg ko ca kon lii tax kon yar war Cheikh Saliou Mbacké njël benn gi ci gone gi li muy njëkk a moom mooy xamal ko téere bi yàlla bi bil xikma nag wal mawxidatil xasana parce que bu ko doon xamal téere yàlla bali ko ñu koy gër bala ko gëdd nga ne waaw waaye déedéet programme jàngaleem adduna mun ta am tatawur mun ta développé wu ba contre sëñ Saliou Mbacke ci benn point ci jàngale ndax lan xale bi dana ko logé foo xam ne mooy gën kër baayam li ma wax lu leer la ndax ñi may waxal duñ ay jàmbur ci man duñ ay malien li ëpp ci daar ji bi ñuy fanaan ci néegi tabax seen yaay ak seen baay yañ bàyyi ña ngay fanaan ci néeg yuy wale ak seen na lu leer laa leen di wax. benn bi sëñ Saaliw di fexe ba donga yi di lekk ka naan ak xëy di naan kafe am na ñoo xam ne dañuy xëy di serete ci bant mooy duñ xëy naan kafe ci dëkk ci réew mi. kon xale bi nga loger ko foo xam ne moo ëpp sécurité kër baayam nga di ko jox loo xam ne moo gën a nekk produit alimentaire bu bu bu bu bu bu ëpp solo la baayam di lekk. mbokk yi kooku deseelu la dara. ba noppi nag. bàyyi bu ne dafa war a yar la boroom xam-xam yi wax. ñu ne waaw mu ne waaye bàyyi léeg-léeg day tële ci yar. <laughs> waa réew mi bu ñu ay ay yarkan ngeen ñoo gën a xam dañuy nax seen bopp. am na kër yoo xam ne jigéen ñaa ko yor. ñoo fay dogal. waaw xale bu màggee ci kër jigéen yoo kër goo xam ne jigéen a fay dogal ko bu màggee lu muy lu muy jàpp. ndax dana baax am na kër yoo xam ne baaxoo wuñ di jàng alxuraan kooku bu màggee kër papaam mën naa am ay comportement yu bari mais du mokkal alxuraan am na sax kër yoo xam ne góor góor góor góor nañ ba mën a jàng alxuraan mais mënuñoo jàng xam-xam su boobaa kon kooku dana manqué sëñ Saliou jël mbooleem liñ soxla andi ko ci daaraam installé boo dikkee yow xale bi da nga loosi fu baax da nga lekk lu baax da ngay taxaw ak moom dana la jàngal alxuraan dana la jàngal xam waaw léegi kon kooku ndax wurta yare as-su'aalu alladi yatrax nafsa question bi posé boppam mooy est ce que kooku warut a yare Sëñ Saaliw bu dul woon daa bëgg a yare bañ gis muy def système bu mel noonu bi war nañu mm-hmm. parce que kooku insaan nit kuñ soxla la mm-hmm. awalan mm-hmm. bi ko des muy nax-naxal xale bi di la ko nax-naxal loo daana wax naan sa laaw day gone gi nga fexe ba mu weg la moo gën nga fexe ba mu ragal la maanaam nga fexe ba mu rus la mhm. nee na moo xam moo gën nga fexe ba mu ragal la mhm. ndax nee na ki ragal moom feeg mi ngi lay gis mhm. day ragal a def loo bañ ki rus nag nee na day bañ a def loo xam ne buñ ko ko nettalee ëllëg mu ne la mbaadu yaa def xoolal ma boobu xekk ma kon benn daana ku la gën a nangoo jaxasoo gone yi it yaa ci gën a mën a am li ma bëgg léeg-léeg mu gis nit koo xam ne la koy soppi bëgg ko du mën a jàngaleem sax xay na waaye na ko gone yee ñemee te loolu murabbi ñi nga xam ne dañuy jàngale ilmu tarbiya bi boo demee ci mustalahaat qadiima yeeg xadiis yi dañuy wax ne bu am xelam naawee dootu amum xel kooku d'accord nañ ci ñun ñëpp boo ko ne demal jàngi rek xel mën a fëy jë bàyyi daa nekk mën nga ko ne demal toogi bu jàngee du ko xam yooyu ay détails yu gudd la bëgguma guddal jataay bi sëñ Sall daf ko daan invité kenn musta gis ku am daara di fa jàngale lu gone ga daw ñibbisi ci yow mii borom daara gi te demu ci ndeyam ak baayam kooku laysa bil mantiq c'est pas logique te gis ko xam ne day dawee got mhm. mbaa mu dawee xàbbaan mbaa mu dawee njàpp ndal ñëw ci kër sëñ bi ko mhm. koy dawul mhm. day serlu bu doon koy daw kay danaan si wu dem ñibbi seen dëkk ok mais moom ku daw da ngay ñëwaat ci moom biir kees gi di njóoyante moom ba mu jëlal la boppam yóbbuwaat la ci daara ji kooku koy wax dëgg sëñ bi nit ku mel noonu il faut ngeen am ay maqaayis ay ay ay décamètre ngeen teg ba xam da ngeen mën sa gis ku mel noonu moom déet te lii ñuy wax fii ci kanam kanamu ñëpp kat moom la ñëpp xam sëñ Abibu mi boo xam noonu lay xam boo waxee moom ñi dañ ñëpp moom la ñuy gis mm-hmm. kon kenn mu sa gis ko dawut di wuti sa ab mm-hmm. li ñu mooy da ngay daw kay yow dem sa sa yaay sa baay mm-hmm. kon dana ne roog ansihim bi abaahum kulla xiini sëñ Tuubaa waxoon sama njaboot na nga ma leen fàtteloo seen baay ñu wéttalikoo ma loolu yey na ci jëmmi sëñ Saliou Mbacke tarbiya gi dafa xóot ndax mas naa toog ba yàgg mu ne sa laahu day li ma te sant yàlla mooy boo masaana bëgg a jàng xalil dangay dem mbos soo bëggee jàng naxu nga dem kokki ñooy waa muqaddamatul kokki yi qaala muhammadun kokki yu daari wal abu min durriyatil muxtaari boo masaana bëgg a jàng arut da daan dem kër ma kala xam nga loolu gox yu soree te sottee boo bëggee dem mbos mbos nii la jëm soo bëggee dem euh, euh, euh, kajoor nii la soo bëggee dem jàmbur kër makkaana nii la kon yooyu gox ca jamono yoom ya muy wax nga xam ne dem fenn yombul dem man faa toog a gën a jafe sëñ Saliou nee na li ma ta sant yàlla mooy lépp ngi ci biir këram gi ok moom da ko wax rek te attaxaddus bi ni'mati shukrun daf ko wax ci anamul sant yàlla ne léegi gone gi ci biir daara ji mi ngi jàng alxuraan ba mokkal ci xaafis ci am kaang mhm. su nekkee kaang noppee ci kaang mi mhm. aalim baa ngi koy xaar mhm. ci jàngalaat ko xam-xam te xam-xam yi bu ñu koy jàng chattal ulum lay doon xam nga ne diggante aroda ki bayaan ak ay shu'ara sittal jahiliya maqamatul hariri ñu ne la ko koy jàng mooy kat ñu ne ku muritu ji woon kenn mësu ko dégg kenn ku muritu ji woon moo jàng loolu ki yoroon daaray kaamil ji bu yàggoon ndaw mës na ñëw fekk ma bind ay bayit maraamuka xayru rawmi yaa cheikhu saalixu maqaaluka dikrun kulla yawmin wa laylati fa yumnaaka yumnun cheikhu yusraaka yusruna wa maraaka mithlu rawde yaania thamrati mu ñëw ne ko bind lii ma ne ko ku muritu ji woon mu ne kon béy boo ñëpp muritu ji li am li am solo rek shahid laa bëgg kon mu ne béy boo ñëpp muritu ji mu ne ma nga ne la ma ne ko lii ku muritu ji woon mu ne ma foo muritu ma ne ma ne ma kon suñu saal ma ne ah mën naa nekk ah parce que aalim la ku xam la kon ki noppi ci yow alquran nekk sa dënn nga bokk nga bokk ci ñi gën a mën a rafet mbind mm-hmm. boo demee kër Sëñ Saaliw da nga ko fekk mm-hmm. kim nopp ci yow mm-hmm. luxal arabiya nga jekk ko daanaa wax ko comme naar léeg-léeg mu ne ma ismax li s'il vous plaît yaa gën a dégg arab dégg nga mës nga dégg loolu léeg nga wax ni mën la ayna taxarrajta ana foo génne hal jaamihul faysal am kaza nga xam ne dañu université yu mag yi mën leen déedéet Touba ñu ne ma ma maax naa Touba boo ne Cheikh Sall ma ne man huwa zaak mhm. kan mooy kooku mhm. te ba noppi ñoom booy wax ñoom ñu baalu la mhm. ngir axta lugawiya yi ñuy toggoo ak axta nahwiya yi ñuy toggoo ak adamu taabir kalima bi diqa voilà kooku mooy Sëñ Saliou Mbacké duñ ko man ni nga ko mënee duñ ko jekk ni ko jekkoo te yow mi ko man jekk ko foo ko xamee kat Sëñ kon kooku ku mat a jox ormaam la sénégalais nit ku ñuul moo ko xe moo bët buy xool xeef ñooyam du ko gis ndax daf koo jege ba ëpp li leen sore rek la ñuy la lootaabe ji mhm. lootaabe ci olof moom la ñuy wëri mhm. waaye sëñ Saaliw mii bu ko arab yi amoon mbala ñeneen dëkk yi ami xel mhm. na gën fekk nañu koy jàngale ci biir université bi mu nekk ci benn euh, faculté wax ne naa la faculté tarbiya ci Cheikh Saaliw Mbàkke direct kon nga noppi ci gone mu dégg diineem waxuma la ko de muy way ci arab mën nekk naaqid adab kooku ba tey mbokk yi loolu kenn du ko oyofal nga noppi ci gone muy nit koo xam ne insaan kaamil mutawazin nit ku nite foofu lu am solo la borom xam-xam yi dañ ne nit dafa taxaw ci diggante ñetti étape benn étape bi mala dëggantaan la benn at étape ba malaaka dëggantaan la mhm. benn baaxu ci mhm. ba ca diggante bay nit mhm. soo ko defee muy mala xayawaan rek la moom mën naa rey nit mën naa jam nit mën naa saaga nit mën naa sax futti ko ci biir nit kooku jikko mala la mën naa dem itam lu xam dara ci àdduna lu dul jàng ak werd kooku jikkoy malaaka la suñu borom nangu narul adduna bii ñi koy dundal di ay sujjootkati ki rokkookat mm. déedéet ay mm. baykat ak i gorkat ak i nappkat ak i sàmmkat mm. ñoo mën a dundal adduna mm-hmm. kon kon bu yéegee ba mu ëpp ba dem ci malaaka ne yàcc yàccaaral yu mënul attanul lu dul xalima mm-hmm. ak akub jukki mm-hmm. kooku du defal du participer ci développement déedéet développement ki ci mën a participer mooy koo xam ne bu dem jot tool jotee mu dem tool bu yoree machine bii xam ni mu koy installé te bu wàcc jotee bu wàccee sangu ba set nekk doomu aadama joo xam ne ku ko gis ko xanaa demoo tool. kooku moo mën a avancer adduna. moom doomu aadama bu yéegee ba mu ëpp du baax. mooy day nekk malaaka. moom daal rokon su jot ci lañ ko bind. su wàccee ba mu ëpp day mel ne mala euh, mala. lekk ak naan nelaw dong lañ ko bind. ñaar yooyu benn baaxu ci su ko defee nag bu mosee dara ca lële. muy niru malaaka ma ca jaamu ga. niru ko ca su joodi ya day wàcc nag niru malan mala yi mhm. lekk ga ak naan ga mhm. ak nangoo sonn ga mhm. suñ ko boolee ñaar yooyu ngay boole rek mu nekk doomu aadama ci digg bi moo tax suñ Saliou Mbacke da lay defar yéeg ci kaw defar la wàcc ci suuf defar la su nappee ci yow nag nga nekk insaan parce que nit dañ ne su la ragalee su la gisee li nga koy sant lépp dana ko def waaye nag soo dëddoo nag lu ne mën na koo def sa ginnaaw sëñ Saliou douze mille personnes ba mu fiy jógee mm-hmm. moom la fi bàyyi ñoo nekk nekk ñu nekk en cours mm-hmm. douze mille personnes yëpp ay sittiniyaat lañ maanaam ñoom ñëpp ay soixante la jëm suuf mm-hmm. mais kenn bokku ci quarante ak trente douze mille personnes nga yor ko ci benn organisation bu am ak normalité déggoo ci kenn kuy def laneen si sëñ bala ngaa xam ne moo jafe nga wut cent personnes ñu nekk ci ginnaaw xur wii chaque jour da nga dem police yaa nga gendarmerie yaa nga yaa ngay jéggalu euh, ña nga dendal lu ko waral boroom xam-xam daf ne nit ki nga taxaw ci kanamam di ko gëdd ka saaga nga jàngal ko yoon wu ñuy tegee moo gën a yomb parce que mënoo tout le temps ngay taxaw ci kanam di gëdd ka saaga boo ko xamalee yàlla noppalu nga ci moom ndax ruux xamut ku dul boroomam ar ruux la taarifu ila rabba moo tax ñu ne borom xam ne naan ko ala bi dikri lay ma innul qulub nee na ruux saa yu xamee yàlla noppaliku noonu lay tekki nit ki boo koy jàngal jàngal ko alxuraan alxuraan ja dugg mhm. nga jàngal ko xam-xam charia mhm. bi mhm. xam-xam ba dugg nga jàngal ko mu muallaqaat charia yi lépp lu ñu waxoon ci àdduna nga mën a toog fa nga toog ci sa biiri néeg yaakaar naa xunaa London moom sañ ba sañ abi bu yom mi xam na toog fii di xam la ca Britannique toog fii di xam la xew Amérique kooku nit a koy def waaye tarbiye nit bu jubee sëñ bi xalan ko ñëw sukku raam boole si gannaaw sëñ bi ñeme naa tox mhm. ñeme ñeme naa dandal mhm. randal mhm. lu ko jar kooku du mu rabbi loolu mu naan def nag fexe ba nga nekk xam sa borom fexe ba nga xam itam lan mooy dox ci adduna bi nga xam ne da ngay daal di xam ne daanaka euh, jamono yooyu dañ daan wax naan ay jimi kelteer ak ay ay ay ñu yàgg ñooñu ay sàcc ci raak ak yooyu yëpp nga xam ne da ngay daara ji di joxe information boo xam ne directement ndax yow yaa ngi naa London rek ngay ngay suivre loolu mooy niteel nit bokk yi moo tax ak nitam fu mu jógee ca daara ja mhm. du nangoo doon ab donga daara daa iman mhm. dongab daara ak donga di su ci dëkk mhm. dangay xam ne yaa ngi woon ab donga di jàng bi nga noppee léegi dégg doon nga ab responsable yaa président yi yeeg ministères yëpp war ngeen di mën a mbëkkante loolu mooy ku mat waaye am na ñoo xam ne bi noppee gisee ni donga fii gisuñu sëriñ bi gisuñu lu bokk sëriñ bi duñ xam dara liñ xam rek mooy tàmm banque tànk ak raam ak sukk waaye ki des yëpp mënuñu ko réglé kon nag tarbiya ak sëñ Saliou Mbacke dafa nekk chumoliya dafa nekk loo xam ne dafa capable bàyyiwul dara loolu moo waral nag ay nitam buñ demee ca commerce ga dañ cay ràññi ko lool suñ demee bitim réew dañ cay ràññi lool suñ demee ci seeni nawle yañ tudde ay ñu yar woon it wala ñu yaru ji woon daañu ca ràññiku ndax dañuy am ay yeneen yoo xam ne ñooñu duñ ko am tarbiyaam kon lu yaatu la tàmbalee ko ca ba gone gay gone de ko nax-naxal ak nangoo ko nax-naxal daan àggoon na ci ba ne sa law ku nangoo toog dong yurub jukki di ko xool bu leen ko def dara xaru ma loolu ku nangoo toog yurub jukki di ko xool képp bu ko def dara mujj mu ne ku nangoo toog ci daara sax bu leen ko def dara <laughs> xoolal far kon kooku am agg na ci bis mu ne yéen li leen war mooy jàngal la ci des bu ci jotee ka ko ci war def dana ko ca def xanaa loolu mooy nag kon yéen seen yoon nekku ci mhm. kooku ay responsabilité daan jël en tant que ab yarkat loolu nag ku ko weddi demal ca daara ji da nga gis koo xam ne li ñu tudde woon euh, fàqkat yeeg dawkat yeeg ay ay tur yu bari amoon nañ ko mhm. mhm. da waaw danga nga gis ñu xëy xëy kenn xëy ci rek mhm. daal di jaayante tàmbali di jàng te kenn du xam lu koy jàngloo mën naa dem ba bindub kaamil wala mu sori ci mu jàng lool kon kon bu doon na jàngkat baa ba mu ca tëlee vraiment waa ji wut a jàngaat mais da ngay gis seet seet kooku xëy xëy tuub mel ni ku tuub mel ni ku mel ni ku soppi ko te bu te tuubee nag lam doon def kenn dutu ko def looti mm-hmm. kon loolu mu wax ne bu jotee ka ko war a def dana ko def mm-hmm. man loolu laa teg muy sama teg asalaamaaleykum tabarakallah tabarakallah tabarakallah jërëjëf sëriñ Maxtaar sant nañ bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. ci bi ngay daaneel la suñu mel mbokkum taalibe di jëwriñ ci kër gi sëñ Balla Jaxate ñëpp xam ko ci wetu sëriñ Cheikh Saliou mu di ko jàppale ci liggéey bi mhm. egg si ci jataay bi mhm. ñu di ko nuyu mhm. te di ko jox ab cëram di ko yóbbante yoo tamit ca suñu sëriñ bu tedd ba sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Saliou di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu tamit ak wér ñu del si wàcc sëñ Maxtaar ndax ni ma ko waxee léegi wax nga ñu sëriñ bi wax ñu ay jikkoom wax muy yare wax ñu tamit ni muy bu noppee ci doomu aadama bi doomu aadama bi ni muy mel ak ni muy jariñu réew mi ak ni muy jariñee boppam waaye tamit ni muy jariñee ay waajuram ñu jeexal ci yar daana wax naan ku ñibbi ci say bokk te ba nga demee saw tur soppikuwul ñu mujj naan la sëñ son yi bu sëñ Habibu lañ daan def buñ la séenee di ko ñemee def ba tey nee kon war ngaa seetaat sa bopp la nga fi doon wut amoo ko loolu bokk na ci xikmaam ku ñibbi ci say te saw tur ñu naan la sëñ son yi bu sëñ sëriñ sëriñ